Mbacso na nga def. maa ngi fi chéri maa ngi ci jàmm maa sant yàlla bu baax. naka wa Sénégal. Sénégal ñu ngi ci jàmm di leen bëggee bu baax di bëggee waa Sénégal people bu baax sax. Mbacso temps yi internet toj. waaw la noonu la <laughs> yàlla baax na. baa ngi toj ñu ngi siy gis loo xamante ni daal ñu ngi naan mbaa ay photo montage la wala Mbacso mer kase la. non man xool yooyu maa ngi liggéey daal. mais nag nit ki lu mu bëgg def rek kenn mënu ko contrer def te aussi destin tamit dafa am jaar jaar dafa am yàlla tamit lu mu dogal kenn mënu ci dara parce que man jëluma ci woon intention boobu parce que man dama nekk ci famille bu nga xam ne famille bu baax la famille bu riche bokk ci waa kër Mam mawda yi kon dinaa def leneen lu dul loolu mais nag nit ki li nga bëgg gis rek ngay gis dama ne woon duma ci waxaat sax mais yow sama sœur nga yéen waa Seneweb People samay xarit ngeen donc il faut ma wax ci tuuti ku tëdd ci photo ci tëdd kuy photo da ngay photo jàmm ak salaam mais ku tëdd ci suuf di photo nit di nga gis leneen lu dul loolu loolu rek laa amoon lu ma ciy wax li ci des moom yàlla baax na lekk na suñuy sama ginnaaw daal li sama li sama kanam laay xool mm-hmm. mbaacos fecc bi metti na Sénégal paparazzi euh, su ma koy wax man man gisuma ko Sénégal fekkee sama dëgg rek wax paparazzi ñu ngi gis États-Unis ñom yi nga xamne ni ñom ño fay nekk jaral leen ñu tok sa buntu kër wala tok fo xamne laqatu làqatu di la seet loo dugg ñu dugg fa jaral leen ñu dem ba sa biir kër fay sa bon bi nga xamne mo lay liggéeyal pour am li ñu bëgg kuma lu nga lu ma paparazzi mais fi Sénégal li ma gis man fi internet la fi gis internet mu ngi melni man rek tay ma jël sama benn photo posté ko am sama 5000 amé té su ko sama 5000 amis yoy jëlé partager wat ko mën naa ci am 25000 euh, amis yenen ñuko lire am naa ci benn expérience tey fecckat yi nga xam ne ñu ngi fecc bu ñuy jógati di fecc ñëpp ñoom ñëpp sax dañuy sol fiso mais ñu gën a xam seen toogaay gën ko defaraat surtout nag bu nekkee photo bu nga xam ne ni photo bi euh, neexut a wane ñu jël ko doo ko ci internet du neex sa xol du neex sa famille ñun ñëpp dañ koy dund muy man muy yow muy keneen dund nañ ko neexul ci xol vraiment mais comme ni ma la waxee rek nañ jàppalante comme ñoom dañ ñuy soxla ñun dañ leen di soxla ñu jàppalante suñu biir ku ci nekk xam ne rek lii mën na dal sa sœur wala mën na dal sa frère mën naa jug léegi dugg fee ne xaaral ma simmee ko sol yére ñu photo la sa benn xarit sax mën na la photo jël dugg ko ci internet ñu ne paparazzi la fekk du paparazzi kon paparazzi bi ñuy wax mais euh, li nga xam ne man moom laa xam paparazzi du loolu dama bëgg rek ñu xoolaat defaraat toogaay bi ñoom samay frère lañ man seen sœur laa gisoon naa ne buñ ko gisee waroon nañ ma mën a woo mais comme woowuñu ma ñu def ko xëy na tamit seen tolluwaay foofu la yam mais man dama gis ne dañuy liggéey mais liggéey bu buñ ci boole woon di communiqué ak ki ñuy liggéeyal ba tey war naa mën a nekk démb lu may def sama séance photo dama leen woo ñu ñëw xam nga soxla soxla nga leen dañuy soxla wante suñu biir muy man di keneen ñoom ñoom dama leen di soxla ko ñoom niñ may soxlaa donc nañ ko gën a rafetal quoi fii ci seen TV la lépp di leer photo boobu lañ ko jëlee sa diggante entre copine la woon wala toogin bi lan la toog bett la wala lan la. non non toogin ah. en fait dama taxaw comme robe bi rek la lu ma sol ñu sant ko amoo robe bu gàtt sax ma koy éviter depuis photo boobu amoon. Mm-hmm. mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam man amul lu dul bëgg sama ay fans rek du sol lu rafet robe rafet laa sol ñu fant ko ma taxaw sama benn copine moo doon anniversaire ma taxaw bu euh, euh, penc mi. waal Wally Seck moo permettre euh, taxaw di ko kii siffler gâteau bi nii rek ñu photo ma yëgu ko sax. yëgoo photo bi yëgu ma ko sax dama xëy rek gis ko comme ni nga ko gisee. mais man dafa am mm. dafa. mais loolu yëpp je crois que tey amul solo li am solo mooy artiste la TFM mu ngi fi pour ñu wane ko tey Mbathio xanaa nga nuyoog waa Sénégal nga wax ñu tey loo indi. waaw asalaamaaleykum. léegi Mbacco. waxu photo boobu. waaw laa bëgg ñu gas ba mu suul fii ci émission. xóot ba mu xóot ñu dugg suul ko. ne te xam ne sama photographe Pape Lam du def lu ñaaw. déedéet léegi Mbacco dañ lay bàyyi nga nuyoog nit ñi ñu may la clip boo xam ne. waaw wanewaat ni nga mënee ñu xam ne yaa ngi fi ba tey. te duñ la koy maye nga feccal ñu nag parce tey si ses nañu wax ak waa tey.